dafay neex yàkkam ci heure bi jot ba ñëpp dem seetaane waaye nag gis nga sama morceau bi nag ma bindal sama papa ji nga xam ne lu ma nekk mu nete ku ko laal laal ma bu dimanche ba course am xol yëppay neex yàkkam ci heure bu jot ba ñëpp dem seetaane ku toroxal fas mu rafadike taxaw ni la jàkk bul dem wàccoogal li ngay wute ngi ci fas bu dimanche ba course am xol yëppay neex yàkkam ci heure bi jot ba ñëpp dem seetaane waay waay làmbali fas taxu la fasa raw ca gannaaw mu ca xala des nga ca kanam bàcc bu dimanche ba course am xol yëpp fay neex yaa kam ci heure bu jot ba ñëpp dem seetaan jiitu nga leen sànni karawaas daan nga leen jël bu dootul mi ba mu bàcc jóob ne naa naa goore waay bu ba course am xol yëpp fay neex yaa kam ci heure bu jot ba ñëpp dem seetaane bu ragal dara bàcc jóob bu ragal dara waay sàkkal sa rax wante ci sa bopp sa yaaye liggéey bu dimanche ba course am xol yëpp ay neex yàkkamti heure bu jot ba ñëpp dem seetaan waaye borom yaa ju baax du fakasalu dellal ndànk e bàcc jóob affaire bi na ci la bu dimanche ba course am xol yëpp ay neex yàkkamti heure bi jot ba ñëpp dem seetaan dama ne bàcc jóob moom moom jaane moom na koy moom mawlul bàcc jóob a xam bu dimanche ba course am xol yëpp e fay neex ya kam ci heure bu jot ba ñoo ñëpp dem do yaa sonni jay ñoo ma ko du jox salam alaykum mbokk senegal salam alaykum mbokk yi dikete non ak yeen fi ci elage El ma ko du jop borom gañaa yi bàyyi Aminta Diop sama waji ci dimanche bu jot ci waxtu wi nga xamni ne tubaarkàlla dañ leen fi fasiyene taxawal di leen dëgtal li nga xamni mom moy xew fi di rawante fas di course bo xamni course noble la babakar Mar ñu nuyu bu baax président CNG course hippique waaye nuyu ñi nga xamni ñom la andal di liggéey liggéey bu rafet bi nga xamante tubarkalla mu nexa wone ma ak sama ndajor ki nga xam moy bayzal Zal di sama frère waaye di sama xarit tubarkalla ñu bok kadior man ak mom mu dëkk Peex mu dëkk tiwawan te lepp di kadior Papa Zal nuyu nañu la. assalamu asalaamaaleykum ñu ngi nuyu mbokk yi di nuyu ñëpp di ziaré ñëpp Cheikh tay fi ñu yëkkatee suñu kàddu moy Olof ndjay daf ni fa nga dafa jage soo amee ndimbal dootoo fa jógee ñun nit ñi ci course la ñu gis course lañ bëgg suñ xool moom lañ suñu waajur yi bàyyee ñi ngi ñaan course yàlla ci yàlla def jàmm yàlla def ci xéewal yokk course ndax ñun bu course yokkoo rek yokk Cheikh dëgg la tey foofu laay nuyoo foofu laay daaneel sama kàddu Cheikh jërëjëf Papa Sall bu course yokkee rek ñu yokk te am nañ ci am nañ ci yaakaar ne dinañ yokk ndax ki nga xam ne moom moo jiite euh, course bi yor wàllu CNG course hippique di El Hadj Cheikh Diagne Niang wàññiwul dafa yokk ci lu mbaax rek la ne booba ba léegi ñun ak moom booba ba léegi ñun ak moom ak propriétaires yi boobu ba léegi moom ak jockey yi boobu ba léegi moom ak entraîneurs yi boobu ba léegi moom ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy artistes yi ak ñi nga xam tubaarkaala ñooy commissaire ak juge bi kenn ku ci nekk sa diggante ah. ka nga hmm. jaay ki am njëg may ka la neex. li nga wax ni président Cheikh Tidiane nag wàññiwul dafa yokk foofu rek laay dugge président la boo xam du tontu. dëgg la ñor na ko ku nekk ci course bëgg na ñu ngi koy ñaanal yàlla li mu yéene ci course yàlla def lu gën a kawe njortam ci barke yonent bi jërëjëf euh, lim nga yéene li mu yéene course yàlla na ko yàlla defal maanaam yàlla na ko yàlla oyofal yen bi ndax nit la koo xam ne tubarkalla ku xàmmee la ku baax la waaye ku ràññeet la it nag Babacar Mar tëkkale am na fi rawante dina feeñ waaye tubarkalla course dina neexe fii it nag ndax fas yi soo bi li tax mu neex ah. démb sama benn xarit daf ma woo ñu ma peex seen émission bi li tax mu neex da ngeen waxtaane fas ba pare di ngéwël xam nga gars yi def ngéwël rek bàyyi fas yi mais dañ ay géwél nag xam boo dee waxtaane ngéwël da war a boole fas ndax amateur ni toog kaw turbine bi te lépp la gis foog nga boole ci fas yi ñoom xam nañu lépp voilà foog nga boole ci fas ñoom su ko seen xol tooy dëgg boole ngéwël gi ak fas yi la wax léegi nii bi ñu waxee dafay dawal dimanche man leen Serigne Bamba fas yu mu amoon mu tudd Ridwaan dégg nga Serigne Bamba ak Serigne Touba ñoom ñaar la leen boole ca maam maaram ba léegi tàqalewu leen ciy fas dégg nga noonu rek la demee topp leen ba ci fas diggante alaaji Malick Serigne Touba kii fasam tudd Ridwaanulaahi kii fasam tudd Ridwaan te xoolal alaaji Malick fasam bi mu ko jëlee da ko jox ab géwélam la ko may góor gi Moussa Alem Mbaye la ko jox fas bi mu daanoo ci digg ëttam la ko suul loolu loolu gis naa ko sama benn baay bu ñuy wax Baye Cheikh Mbaye papay Ablaye Mbaye dafa yoroon benn fas bu ñuy bi mu génnee àdduna ci biir fa ëttam la ko suul. yamu ca Serigne Bamba fasam boo demee dëkk bi ci Touba dëkk ba ngëlëmu la tudd xam nga tax dëkk ba tudd ngëlëmu façon moo yoroon melokaanu ngëlëmu waaye façon ridwaan rek la tudd waaye façon barkeel ba mu barkeel ànd ak ku liggéeyal yàlla ànd ak góorug yàlla moo wuy si fas bi barke bi ba dëkk ba ñu koy wax ngëlëmu waaye dëkk ba tudd ngëlëmu façon ay ngëlëmu fukki fas la ñu bàyyi saal war a daw ci distance wu 1200 mètres gaañaa nga ca raj raj loo bu xonq bi jóg na Baye Zal bu bi jóg na dafa mel ni bu wàccee rek gars yi départ seex bu wàccee gars yi départ Baye Zal ndax bu dee wàcc bu verte bay jóg nu delloo bu xonq bi bu ko defee nga gis ñu ibbi box yi fas yi daal di génn. benn fas rek moo téemu mu départ. waaw boobu benn fas rek la su ma juumul ni benn fas rek. Delphine Alamin Rool. gaa yaa ngi ci box ba léegi seex. Delphine Rool. boroom këram di Cheikh gay Baye ba yi jóg nañu Baye Sall kii génn suma juumu tubarkalla talisman lañ door mu génn waaye waaw waaye maa ngi gis black black a ngi nii ci aras bi kii génn tubarkalla baax na ba féex la baax na ba féex waaw mu ànd ak Delfinia baax na ba féex Baye ah. la ñuy tuddee fas baax na ba féex baax na ba féex xoolal ma loolu rek lu baax a baax ba doy day daal di féex day daal di féex Baye la tudd wallaay dëgg la kooku la mu ànd ak ki nga xam ne tubaarkàlla mooy baax na ba féex mu ànd ak Delfinia waaye mu nekk rawante boo xam ne rawante bu nar a ci diggante fas yi nga xam ne ñaari at fukki fas ñooy rawante Baye

baax na ba tey mu ngi noonu di génn di jël tournalu Golo waa Couture. Baba euh, euh, As ñu ngi noonu boor tournalu Goloré Couture. dagg na ko ko. waa tournalu Goloré Couture waaye maa ngi seen black ci digg bi mu mel ni baax na ba feex ak nga xam mooy talisman ñooy rawante. baax na ba feex talisman ak Delphinia baax na ba feex talisman oh ah lii dina naqare lijjanti de Baye Zal lii dina naqare lijjanti. lii photo finish lii photo finish moo leen di tàqale Ass Mbaye photo finish moo leen mën a tàqale tey. waaw tey course bi photo finish moo leen mën a tàqale ndaxte fas yi boo xoolee ñoom ñëpp ay trois quarts de cent la ñu mais bi ñuy yegg si ci ci ci tableau bi dafa fekk talisman ak delphi ñoom ñëpp dañoo ànd daanu ci tableau bi lii daal dañu xaar juge rek ñu ñëw jël ci seen ay matuwaay waaye kenn mënu leen a tàqale. kenn mënu leen a tàqale Ass Mbaye waaye Papa Sall tubaarkàlla yii fas ñu am ñaari at. ndax xam ne bu yii fas boo leen xoolee ñoom ñëpp mën nañoo wax ni ñoo tolloo degré de cent ndax demi cent bi chalalaala ak ki nga xam ne mooy mami ndawa waaye boo xoolee ki nga xam mooy balak trois quarts de cent la delfinia trois quarts de cent la baax na ba féex trois quarts de cent la incha allah trois quarts de cent la kii di bel sept huitième la waaye jaxeer nduur demi cent la ki nga xam mooy ndigal trois quarts de cent la Babacar Mar kooku mooy Mohamed Soumaré Babacar Mar jëlal ma Mohamed Soumaré mi nga wax ak juge bi kooku mooy Dominique Abouris mi ngi ànd ak euh, commissaire booy ñu ànd ak ki nga xam ne ñooy juge ñii ñooy juge boo gisee juge yi tubaarkaal ni ñuy waxtaane ni nga war a xam tey jii course bi jaxasoo na waaye du lëj ndax dañ koy lijjanti Alaaji Cheikh Diagne ñang tubaarkaal indi na lépp loo xam ni ay moyen la lu jëm ci wàllu hippodrome waaye lu jëm ci wàllu fas commissaire a ngi nii sol casquette bu bleu bu verte bi ki may commissaire booy commissaire Ousseynou ak Assane la ñoom ñaar ay seex lañu waaye kii may commissaire bi kii ci juge bi la ne waaye fas yi nga xam ne ñoom ñoo war a daw léegi nii te nekk ci biir paddock bi mooy groupe 3 bi Babacar Mar dëkkale am na fi rawante dina feeñ waaye tubaarkalla course dina neexe fii it nag. c'est xoolal fas yi ni muy wongoo xoolal fas yi muy wongoo mi ngi mel ni aw mi ngi mel ne ko ay koos jàpp. mooy Ali Salaam. mi mooy Ali Salaam. Ali Salaam ngi nii waaye kooku ngay seen tubaarkalla kasaak bu bleu blanc bi moom mooy Ndeye Fall 3 Ndeye Fall 3 bàcc Samba Kura Joob ba kii jeeñ la kii mooy Abdou Samad Abdou Samad a ngi noonu waaye waaye waaye sama nijaay a ngi noonu Amadou Diallo sama nijaay Amadou Diallo nuyu nañu la ñoo ngi lay ziar bu baax. waa Jàmmagari Events li ngeen teg yàgg na de te neex takku dutee takku sexew waaye tubaarkàlla macha allah kooku ngeen di seen mooy mooy mami ngoone xatti boobu mami ngoone la mami ngoone ngook mooy waa tubaarkàlla li mu def nii xam nga waji dafa jël euh, tanki duggal ko ci dëgal yi di melni lu koy xaw di jam muy muy muy muy def xam nga lolu sax yeen yéen a ci gëna min lolu parce que yeen wa pex xam ngeen bu baax fas fasu ngeen dajal xala amo aw fas boko tagate ba moko xeex seex moo xuma la dëggal mais sa baaraamu di sa boko tege mu def ni mu def ah dégg lolu way Baye gis nga tubaarkàlla macha allah la jor jooba ngi noonu way kok nga seen mu sol casquette bu rouge bi kok nga kok nga seen mu sol casquette bu rouge bi mooy Mbaye Diène Mbaye tubaarkàlla moy borom fas wi dafa joxe ay consigne mbay jéen mbay ngi noonu kii kii dem Demba Seck mbaye maamam mbay jéen a ngi noonu tubaarkàlla joxe na ay consigne ma ngay dem waaye waa Dominique Abourissé ngi noonu tubaarkàlla kii mooy Lat Joor Joob Lat Joor Joob a ngi noonu Lat Joor Joob a ngi moom la mbay jéen indi laay la waa mbay jéen a ngi nii waay waay waay kii ñu taxawal tubaarkàlla mooy Dominique Abourissé Dominique Abourissé a ngi nii mais doon ñu ngay nuyu

waaye commissaire a ngi nii tubaarkàlla fu ne da moom moom talul dara tubaarkàlla ndax dafa nekk ci ci dafay vigilant moom dafay vigilant nekk sur le terrain fi mu ne nii dëggal dégg ko man na ci fas yi rek tubaarkàlla na ci fas yi rek Babacar Mar kon mën nañoo dem tubaarkàlla macha allah dafa leen présentation bi nga xam ni groupe 3 euh, bi ñoo koy daw euh, euh, ma ànd ci ak sama xarit sama doomu nday di Baye Zal Peex mais Cheikh groupe bi war a daw ñaata fas lañ Cheikh. groupe 3 bi war daw ñu ah fukki fas ak juróom-ñeent. war a daw ci ñaata. war a daw ci distance su 2200 mètres. ah que le laa ilaaha illallah ku ne mën ngaa raw sa morom ku ne mën nga cee raw sa morom sama maa ngi jooy dugub dafa seer ngooñ seer kenn ku ci nekk moom nga yor ci sa yor ko ci sa fas yor say entraîneur yor say sok dénkoon nga ma wax boo xam ne ba léegi maa ko denc ban waxati la da a fas kenn du ko dénk sa waay waayam nga koy dénk loolooy dëgg fas kenn du ko sa waay waayam te kat tey ma waxati beneen fu waay ne te fa daana jaay saalu bee mbam saala yamar faa def maa mba jaama jaama jaama teew yaana jaay saalu bee mbam saala yamar faa def maa mba jaama jaama jaama laa ñaan bu leen sonal dara njaw du mel ni lem abu daan ni sàllaa dem bu si njeddoog délégué kor ko war te mënu laa dox bu saala mar faa dem baa mbay njaab na njaab na njaab na njaab mbay saala mar faa dem baa mbay njaab wutaaxu ko fas góor dem ba fekkam ci mag ci liggéey saala dem ba la jànge gaaw kor ko ña xaw nga war te mënu laa dox mu saala yamar faa dem maa jaar wutaaxu ko fas góor dem ba fekkam ci ci liggéey saala dem ba la jànge gaaw قربان خونا ورتم الله بخمصالة مرفات tubarkalla lu baax te boolewul wax boolewul jili deer ñoo koy ñaanal yàlla di ñaanal tubarkalla guddal far ibrahima borom lay mënu ñoo jili di fi bàyyi ndax babacar maar gaañaa nga noonu ñu leen di ci box yi jeex Abdou Samad bu duggee rek mu jeex. non non Cheikh lii léegi mu jeex. non bu jeexee rek jeex na léegi mu jeex. la ilaha illallah yar gaa yi ci kaw koo ci kaara du ko yëg. xam nga course tey bi lu tax muy metti mooy Racine def leen Racine cëpp première. kii nga xam ne moom mooy Rasoul dimanche passé moo leen raw. Ah, seen TV nag tey jii dafa taxaw taxawaay tey yóbbu ndam li. ah mais seen TV nag yàlla na ko yàlla may ndam. te li ma ci neex mooy. waaw su départ bu ñu jógee ca ca box ya bala bi ñu romb Sen TV moo moo jiite peloton bi. moo la la loolu mais émission jaabal moo jiite yeneen émission yi. mais mais noonu rek la moo tax Sen TV tabarkalla. moom la borom tudd. ndeysaan Ali yàlla ko yàlla dafa jàmm. moom Sen TV tubaarkalla. Njambe Dieng ngi ci kaw. nga xool Abdou Samad Baye Sall. Ndiaga Kodou ko moom te Ndiaga Kodou. waaw waaw. départ bi daanu na départ départ bi daanu na Lat Dior Diop laay seen mu ànd ak ki nga xam ne moom mooy Adja Cheikh waaye Adja euh, ki nga xam ne mooy euh, Abdou Samad ñëw na ci aras bi Abdou samat ñëw na ci aras bi ànd naag ki nga xam ne mooy Sen TV Sen TV génn na ànd naag Abdou Samad Abdou Samad génn na Sen TV deuxième position Baye Sall waxoon naa la ko nee na bu départ bi daanoo Sen TV kenn ko fa njëkk a jógee. kenn du ko fi man Sen TV kenn ko man Abdou Samad génn na deuxième position Sen TV troisième position ki nga xam ne mooy Adja Cheikh quatrième position ki nga xam ne tubarkalla su ma juumul moom mooy Lëg Daawur Mbay ma ah, mi ah, ah, Mami Ngone Mami Ngone la léegi diggante ki nga xam ne moo génn mooy mooy Abdou Samad Abdou Samad mi génn tubarkalla ablu Samad bi génn doomu Kelfu la Kelfu tel kel moo ko jur waaye ki nga xam ne moom mooy ko sikkimu nekk deuxième position mooy Sen TV Sen TV doomu si yàlla dotoon la. instant yii Sen TV dafa làng ak moom seex. Sen TV dafa làng ni ko tey doo fi bàyyi. xoolal ñaari fas yi nii làng nee na doo dem bàyyi ma. raasi nañ ci groupe bi ki nga xam ne mooy sëriñ bi mi ngi ci groupe bi maam Njoxor mi ngi ci groupe bi ki nga xam ne mooy euh, Daaru Minam mi ngi ci groupe bi ki nga xam ne mooy Volti mi ngi ci groupe bi Borom Baxdaat mi ngi ci groupe bi Mbasi mi ngi ci groupe bi Ndey Fall 3 mi ngi ci groupe bi Adja Dior mi ngi ci groupe bi. boot na tournal Gorare Couture. ndeysaan xoolal boot nañu tournal Gorare Couture. xoolal si Abdou Samane. léegi nag Sen TV génn na. Sen TV génn léegi nag Sen TV génn na waaye Adja Cheikh ñëw na. Eh. Ali Salam. dikk na. Ali Salam dikk na ànd naag Rasoul mu ànd ak ki nga xam ne tubaarkàlla moom mooy Ali Salam ànd nañoo ki nga xam ni moom mooy eh, Adja Cheikh Ali Salam ak Rasoul ñoom ñett ñoo ñoo ñoo jiite polo ñoo dem dal nañ ci kaw Sen TV waaye Rasoul dikk na. Rasoul ñëw na de euh, Ali Salam deuxième position troisième kii génn kii génn tubaarkàlla waaye nag Ali Salam génn na Ali Salam génn na Ali Salam génn na Ali Salam génn na Ali Salam génn na dawal nañu Rasoul waaye dawal nañ ki nga xam ne moom mooy euh, Racine ci digg tàllal mi Racine mooy xëcc bu weex boobu ngay seen Racine dawal nañu ko ci digg tàllal mi dawal nañu waaye Adja Cheikh dikk na. Adja Cheikh ñëw na quatrième position dawal nañu Racine kii génn Ali Salam la oh oh maam ñoxor moo nekk deuxième position maam ñoxor écrit cuuj la ne waaye Racine jàpp nag ki nga xam ni moom mooy ah, ah, Racine a ngi wàññi distance bi Racine a ngi wàññi distance bi ñëw na quatrième position Mansour jongo ko moom waaye Ali Salam tey tubarkalla lii mu def. loolu la rasul defoon dimanche passé moo lay wan ni fas yi kenn gënu ci sa morom ku def faux pas sa moroom raw la. raw la ku juum rek ñu ku juum diggante maam ñoxor ak rasul maam ñoxor rasul alayhi salaam génn alayhi salaam raw na deuxième rasul troisième maam ñoxor quatrième racine quatrième di daaru minam li tax yaram daw. waaw li tax yaram daw mooy fas yi fas du mën a daw ba pare tëlee daw. Babacar Maar fas du mën a daw ba pare di télé daw li nga def dimanche raw boo fa delloo sab loxo bu dimanche yi mën ngaa rawaat waaye am na fas yoo xam ne dañoo bëgg di dawaale dëxër am na fas yoo xam ne bëgguñu di dawaale dëxër boo leen gerte bu ñu day ko dañ koy wane am na fas yoo xam ne duñ dawaale mar am na fas yoo xam ne dañoo bëgg di dawaale mar te loolu nag entraîneur koy xam Papa Sall bu fekkee ne si nii nag da ngaa changé yaakaar ni li dang ko wara gëna mëna da nga wara gëna mëna yok sa performance man nga duggu ci kamba gi rasul limu rawé dimanche passé mom lañ ko rawé tay té ki ko raw di ali salam écrit ba mu jóg écrit ba mu joggé écrit bu mag la ndax écrit Ibra déggan tànnoor la jógee ah léegi da nga wax ci fas légui lo xam da fa daw yaram ndax da nga ni fas yi benn télé wu ci daw bu ñu déparé ku def fo paré ñu raw la bu ñu déparé ku def fo pa ñu raw la waaw dama ni saabu du fóoj bopam mais man xamna kima doon fas yi nag dama cee nekk ndax dama koo doon 1946 laa ànd ak docteur Bawa ak sama famille ñu nekk ci fas yi kon nag lii bu ko Umar Bawa defee defal na ko ñëpp wàcc na may dolli nag ni Umar ñoo ngi préparé la 14 grand prix première dame du Sénégal bis boobu musul a tuuti ndax soxna si li mu liggéey waa Louga dañ koy delloo njukkal. ndax li mu jàppale président de la république ba mu gagné élection yi ñun defuñu Louga nag ku bëgg a gis incha allah loo xam ne mosoo ko gis ci course ñëwal Louga ndax lan sunu maire Moustapha Diop wax na waa Louga ni leen daf leen a bëgg ci grand prix bi dañoo tàccu. ah non hippodrome day ma njaw ma koddu sama jarbaat sama xarit di Omar Bawo su fasam raw ba teer. mu jël fas ba ëlbatiku may ko bayam ci yokkute rek la ko gis ta nak ñi ngi wajal grand prix bu mag muy grand prix premier dame à Louga nga xamni man mami ngone day jóge Ngourane wa Ngourane def ko defal ko ay ñaan mu jógee Ngourane ci Ba mu Cheikh amad Fadal mal ëlbatiku nak jubali jubali ko Louga pour raw grand prix bi. sama la ucahan Telo ne keman manga ceo Ngone ku Manyulai sagane Yai sama khon Magangin la bagayaw Fi la la def Madak na war malai Sore yaw mam Vangi pelo Vangi pelo Lamanon mai adunak na chabir jarang ngamukor Unang ko tuden Idi di manggali Lunyawa mo bahul Epo day fair xale yi ne te mag ñi ne fa dañ koy toppatoo Sénégal mooy sunu gaal nañ leen ko te man ko ndam dee am nañ fas. départ ba daanu na Babacar Mar. départ ba daanu na. ki may seen noonu damel teeñ la. damel teeñ laay seen. damel la laa. kooku mixraaj la. mixraaj la. waaye ki nga xam ne mooy Daara Salaam moo jiital fas yi. Tulaay léegi génnaat na man Tulaay génn na Baye Gueye ñaay. waaw muy rawante bu métti ndax ñii nga ànd tey nga xam ne 18 partants lañu kenn ku ci nekk gañaa nga kenn ku ci nekk raw nga fii ren muy ñoddi ak damel teeñ yaa ngi dégg ak pende buri yaa ngi dégg. ak fasuma sele woowu nga xam ne moo moo jëkkëraw fi biñ dawalee ñuy ay gañaa yu mën a daw tubaar ba kàlla seex mais Papa xam nga fi ñuy dawal ki nga xam ne mooy Ngoné neex na ma parce que fas la boo xam ne te tey jii tubaarkàlla dama gis ci moom ak tay waaye xam nga Sokhe nag tubaarkàlla mooy lijjanti fasam gannaaw bu ci entraîneur ba pare Auguste fi ñu ko teg sori na Auguste fi ñu koy dawal sori na kii nga xam ne tubaarkàlla mooy Aminata Diop ma koddu fi ñu ko dawal sori na fi ñu koy dawal sori na waaye ki nga xam moo génn ba léegi mooy mooy Mantulaay bu El Hadj Bakary nga xam ne tubaarkàlla Dieye Masamba Giri Mag Naataak Biri Mag Masamba Bay Bayar tubaarkàlla miin na ko waaye mixraas mi ngi daw fii ci aras bi. Mixlaas nag tubarkalla ma nga jógee écurie la Saint-Louisienne maître Souleymane Diagne tubarkalla moo ko moom waaye nañ def naak nag ci fas yu nga xam ni tubarkalla yegsi na lingeer bi ñëw na suma juumul lingeer bi yegsi na lingeer bi ñëw na ànd ak ki nga xam ni tubarkalla macha allah mooy Aminou Ouma lingeer bi dikk na ànd ak Aminou Ouma mais sama problème xam nga lan la Papa Sall dama seenul ñoddi te ñoddi day fas fas deuxième tour ak seen naa ñoddi ma nga si digg tàllal ma ah maa ngi door a seen ñoddi waaye avancé nañ ki nga xam ne tubarkalla mooy munaas avancé nañu munaas avancé nañ ki nga xam ne mooy aminu uma tawal nañ ki nga xam ni oh tawal nañ mantulaay aminu uma bañ na mantulaay ñëw na waaye mantulaay amuñ tawal nañu damel teeñ Sidi Sawa ngi dóor damel teeñ Sidi Teew mi ngi dóor damel teeñ ah aminu uma génn aminu uma na nag léegi aminu uma génn nag léegi Amine Ouma génn Amine Ouma génn Omar Baaw Siñoor moo ko moom yëpp nga ne Baddo Malène borom segg jaayu na segg bu jaayoo ku sa taw teel léegi la ko may fas la ilaha illallah Amine Ouma ñëw na ci kanam seex ba léegi yëpp nga ne Baddo Malène borom segg jaayu na dawal nañ ñoddi dawal nañ ñoddi ca aras ba dawal nañ ñoddi ca aras ba dawal nañ ñoddi munaas dawal nañu ki nga xam ne moom mooy ngóoy la tiir waaye dawal nañ demel teeñ Laila ilaha illallah dawal nañu munas dedet oh Laila ilaha illallah ñoddi ñoddi la ilaha illallah oh ñoddi jaaxal na ma parce que day fasu deuxième tour parce que suma jumul aminu uma ak ñoddi ñoo and daan lo table bi te ñom ñaar ñepp ñoo bok borom Omar baaw aussi ñoo mom, baba Babacar Mar ñaari fas yi nga xam ñoo daan lo ci kaw table bi ñoo bok borom Omar baaw senior ñoo mom, leen nyodi. di ñoddi ak Oma aminu Oma aminu Oma nak ndayam tooye mo la tudd tubarkalla macha allah ñu doon nag fas woo xam ne fii war naa mën a def jaloro ju waye waaye Mantoulaye ku gis ni mu dawete ji ni nga xam ne fas indi na performance liggey nañ ko ci façon yi bu rafet Mantoulaye ni mu dawete ji ma sha allah amna satisfaction xol yop set nañ nak dimanche passé mo len raw tay ji nak 3e la am ba passal fi may yëkkatee sama cadeau rek moy li nga wax ni ñaari fas yi daano do tableau bi ño bokk borom li nga ni ñaari fas yi daanoon loj table bi ñoo bokk borom looloo ma yéem seex def lu baax am na njariñ soo dee def lu baax lu baax rek ngay am seex. jërëjëf papa Sall. ku jël fas jox ko sa papa. waaw koo rawante raw. dëgg xam nga ma Massiré Bawo seen maam. ba muy dem ca guerre ba deqale 1886 ñaari fas la amoon waaye dafa jël benn bi joxe ko addiye war bi ci des. jëmm ji du ma doyal ci moom li tax du ma ci moom mooy archive la tubaarkàlla macha allah fekke dimb ànd ak njaw ma koddu waaye ànd ak ay mag ñu baax moo tax bu ñu ñëwee ci course bi bu fas yi dawee ba teer foo jaar ma nuyu ko Baye Mbappé Diop nuyu naa la. maa ngi lay fay Alaaji. Baye Mbappé Diop nii fas yi dawee tubaarkàlla sa doom ñu tuddee ko ci fas muy Aminata Diop ma koddu la nga xam ne bàyyam def na fi lu ne ñu tuddee ko hippodrome bi ana nga yëg tey. waaw li ma yëg mooy course bi neex na. fas yi ne ñu ngi def performance progrès ak régularité fi la fas yi toll ren ñu ngi ñaanal ñëpp. waaw mais fi may waxee tey mooy ci ndem si yàlla Ablaye Ndax Samb. communication tay ak course fu mu agsi ca la moom. dëgg la Ablaye ñu koy wax Ablaye Demba Fall Samb. waaw nit la koo xam ni dafa yéwénoon. waaw xam nga yéwén du xaalis. waaw nga am xam-xam jox nit ñi ñu jariñoo ko loolu la daan def loolu tax ñu waxon ko ablay nar bu ma saana tew émission daan nga tok bu ba yag da daan gingi nit ñi da daan waat nit ci delo ci len nak émission nak xal bu rafet mais ablay nar dafa namp tari mu ngi doon and ak ñu wax ndena Njaay ca ganjay mom la way wu reuy wa mom lay way wu reuy wa njaayoo nenne waaw papa la nga ñu a wax ci diggante ndax ñun ñu njaw ma kodd waaw njaw geej la buma ko wax sama yaram day daw mais damay sawar a wax njaw parce que dama koo xam dañoo yàgg njaw yàlla dimbali na ko xam nga njaw doomu ndayu sëñ koso astuloo mbàkke la waaw waa njaw est-ce que bokkul sax ak ak ak waa kër la joor yi damay ñëw sama naar ma maam benn sama naar ngàcc ngunja kumba joor foofu la bokk foofu la sëñ koso loo bokk looloo tax njaw bokk fa <laughs> njaw beneen dimension la woon loo wax ci kursu tey non course bi tey boo ko xoolee course bu neex la course bu ubbeeku la vraiment euh, mu nekk événement voilà di féliciter encore une fois Omar Bao parce que geste bi mu def en fait ñëpp la ko defal nga nekk ci ci say nawle dawal sa fas fas bi raw nga yëkkati ko jox ko sa baay teraanga lolu défé na ni lu rëy la voilà lolu mom geste bu noble la quoi parce que nit aussi amul lu dul waajuram parce que bu fekkonte ni dañuy and ak mom té fonkul ay waajuram ku ñu gis kat dina ni ah ñii kat waruñoo woon ànd ak moom mais ndokk ba ñu nekkeek moom mu fonk waajuram di ko defal teraanga nag. nee na yéen ñu ñàkk ci keneen ngeen parce nit mën ngaa nekk moom mu def teraanga. te doo am xolu wax ko. ah mais adduna moom yàlla moom mooy mooy bind yàlla moo sàkk jaam ñi moo leen moom ku ci nekk rek la nga war a am yàlla sunu borom noppi na ci loolu. jaam nag bu gëmee yàlla set à dire day nangu dogal nangu dogalu yàlla bokk na ci bokk na ci jaamu yàlla yàlla defal nit rek yow nang ci ànd. mais tey bii. waaw ana Massaathie ma wax la tey kenn gisu ko. waaw nag keroog dafa ñëw am nu mu def léegi nag dama koy dama koy xaw a récupérer toujours nag pour bu ëllëgee bu ñëwee ma defaat neneen. Euh, course bi course bu mag la euh, CNG bi mi ngi def li man course yaa ngi ñëw amaat ñi ngi sant yàlla amateur jël si nañu course bu mel nii yu mel ni ak mbégte mi am fii ak rawante yu neex yi moom rek la amateur course am ñi ngi ci yàlla ci yàlla jàpp jàpp euh, jàppale ba nga xam ni dana def euh, saison bi jeex ñuy am course mel nii amateurs yi di kontaan borom kër yi euh, ak yi ak di am ci am bi daanu. ana Ibrahima gars yi jóg nañu. gars yi jóg dalinkoor. seen naa. laay laay laa ilaaha illallaah Taïf ànd nag Dalifort Taïf génn Taïf génn na moom écrit cuuc la ne waaye Dalifort dafa yamale ñu indi béti baaw mu intercalé troisième position ñi ci des ñëpp tabarkal daal doon doon benn ndugu ndugg Baye Sarr dafa mel ni xeex la waaw tey ku xeex ku ku xeex rek gars yi dem bàyyi la waaw rawante la boo xam ne tabarkal la macha allah ku ne mën ngaa doon sa morom parce que kenn ku nekk da yaakaar sa fas indiko waaye fi may seen faydu tubarkala foofa tuba intercalé na waaye dardas mi ngi ci digg tàllal mi maa ngi seen ki nga xam mooy very good zooke bi ko war bàyyi laay la tubarkalla xarañ na waaye alfaat tubarkalla mi ngi ci kër xam nga pap pap saw mi nga xam ne tubarkalla dafa bokk ci écurie Réunis pap saw dafay su day nit ku baax waaye ki nga xam ne tubarkalla moo gër dalinkoor ñëw na waaw dalinkoor ñëw na nag léegi ci kaw tayf dalinkoor ñëw na ci kawam ñoo ngi noonu tubarkalla ci basket bi di waaj a boot tournalu Golare Couture bu nu bootee tournalu Golare Couture tubaarkàlla macha allah Dalinkoor nag léegi mel na peloton léegi Dalinkoor mel na peloton Dalinkoor mel na nag léegi le peloton waaye bi ma xaang ci aras bi bi ci ci ligne bi waaw mais mais mais Baye Zal fii nu téye faydu dafa sori. fi tes tee fay di sori na te Pape Gningue avancé na nag léegi Pape Gningue avancé na nag Pape Gningue avancé na d'office Pape nga dik na ci kawam legui nak nu xol nu wàjj wànnen di mu jékki bëtam nu xol nu wànnen di mu jékki dalin kor, ci di saw jënd ay birdom oh makafal Fall ñëw na makafal Fall béti Maxa Fall dalinkoor daw nañ beti baawo daw nañ beti baawo daw nañ beti baawo dawal nañ Béti Bawo dawal nañ Béti Bawo dawal nañ Béti Bawo Béti joxe na distance Faydu ñëw na Faydu Faydu ñëw na deux Faydu ñëw na dawal nañ Béti Bawo ak Faydu oh Béti Bawo génn na Béti Bawo ànd na ak Faydu maxa troisième position mais nañ def nak na parce que maxa mën na 200 mètres bi fas bu mën na 200 mètres bi la mën na ko. Béti Bawo Faydu Maxa Faal Béti Bawo Faydu Maxa Faal Béti Bawo Faydu Maxa Faal Béti Bawo Faydu Béti Bawo Faydu Maxa Faal Béti Bawo Faydu Maxa Faal Béti Bawo raw na deuxième Faydu troisième Maxa Faal quatrième Dalinkoor cinquième Alfat lu ma la waxoon ne woon naa la Béti Bawo wàllu la ko rey doo gudd fan. ku ni du qualifié ku ni du qualifié qualifié. Pape Gningue moo tax fas yi raw non ma ne Pape Gningue moo moo tax euh, Béti Bawo ak euh, Faye du raw course bi lu tax. parce que dafa te dafa teel a jege daliñ ko dafa yàkkamti dafa teel a gaay dafa teel a dawal fas bi. dafa teel a dawal bu doon toog bi muy yàgg ci deux cent mètres warul dawal dafa war a aar. ni daliñ ko fi ne. bëgg ni góor bañ ni góor waaye tey jii nag jeeg bëgg a jeeg ak kërëm na ne ku bëgg bañ bëri ko fas yi dafa dàq ba dee dafa dàq ba dee tant que Maxa Fall la koy def nii barke Rasulullah du raw lu leer naa lay wax du leer naa lay wax parce que amul état rek seex kon fas moo amul état kii dalin koor dalin ko war ba état xam ñi mënu ñu ko raw serigne parce que am na état parce que am na état sangal kam la ñu indi tey ndax bo gisé tay miñ déclaré la pour raw la grand prix waaw combine la bam ñi ngi parce que mu ko koor du yoon day tok touti xaar touti bu fi ci 220 mu da di raw non grand course bi gaay course nañ ko ci jamm que le meilleur gagne tey eh, biti baaw lañ préparé pour mu raw première raw na première ñu ngi dend ak ki nga xam mooy sama ndijaay Alaaji Guèye ndijaay nuyu nañ la. fay naa leen. ñu bàyyi la nga jooyal kàddu yi nga xamante ni bëgg nga ko génne euh, te ngay waajal journée bu rëy boo xam ne fii nga koy defee ci programme El Hadj Ndiaye ba pare. damay naan waxaale na ma lépp. a la bàyyee di nga ko wax. kon cër boobu dama la koy bàyyee ci journée bi. li ngay waajal tubaarkàlla naka lay demee. yaa koy wax xam nga ni muy demee bàyyee naa la lépp. incha allah rabi kon dinañ ko wax muy journée boo xam ne journée bu am solo la. ah journée spéciale àddina bi yëpp ñu ngi koy xaar muy journée boo xam ni journée bu spéciale àddina bi yëpp ñu ngi koy xaar euh, mu déjee ko ki nga xamante si mooy maire Diamniadio waaye fi may daane la suma cadre tubaarkalla di tàggu àddina bi di tàggu ñëpp Baye Gueye Niang tubaarkalla dugg na ci biir plateau bi Baye Gueye Niang xanaa ñu bàyyi la xëy na dafa am loo kaddu a xam nga Mamar day kawale solitaire mu rawante rawante technique boo xam ne mosoo ko gis sax ci rawante dafa baay bi maxa jaaree ci araas bi bu mu ko seetee dégg maam bi ñu daal digg tàllal mi bi ñu daal digg tàllal mi maxa jeex mamar daal di dawal nag dégg maam bisi baawo ba mu dawalee bisi baawo gàddaga daal di foofu moom fekk si ko ñu ànd bi ñu laal tournal bi laal bi ci raw na <laughs> loolu waxi Baye Gueye ñaar waaye Babacar Mar foofu rek la ñuy tàggoog yéen ba dimanche incha allah bi ci waxtu yi nga xam ni moom la ñuy xaar seen émission njaabal ngeen ànd ceeg seen télévision seen TV jërë ngeen jëf ba dimanche incha allah rabbi